neuf nga koy jàng ci yaa sattaaru yaa sattaaru soo noppee nga tëje ko ñaan bi allahumma asturna fawqa al ardi wa taxta ardi wa yawma ardi alayka nga wax ko incha allah ginnaaw bi nga waxee neuf yi ci yaa sattaaru Hadj Babacar jërëjëf Oustaz Mor RFM matin RFM matin émission bi yee Sénégal RFI matin 7h40 sunu gan Maimouna Bousso salaamaaleykum. aleykum salaam Babacar maa ngi lay ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi gërëm El Hadj Ndiogou Diène euh, yow yaa jiite mbootaay gi ñuy wax mouvement bu ñuy wax force citoyenne euh, bokk euh, daanaka ci ñi nga xam ni ñooy bàyyi xel li xew ci réew mi politique ak leneen dañuy njëkkee tukkib nemmeeku Macky Sall ci diggante. Euh, Kaffrine ak Kédougou loolu la woon officiellement waaye jaar na Fatick ak Kaolack euh, am fa yëngu-yëngu politique euh, tukki koom-koom la normalement am na yu mu inauguré ay l'hôpital ak yoon seen gis-gis ci melokaanu wajaase googu Macky Sall amal ci tund yooyu nga xam ni diggante samedi ak dimanche ak tey fa la nekk. possibilité bi nga ma may ma wax ak askanu Sénégal di nuyu El Hadj di nuyu sénégalaises yi ak sénégalais yëpp. Euh, comme ni nga ko waxee rek euh, gis nañu démb foog naa week bi yëpp ñetti fan yoo xamante ne président Macky Sall tàmbali na campagne électorale laa ko mën a waxee. parce que foog naa ni euh, li mu def ñëpp xam nañ ni c'est quand même normal que président inauguré def ay tukki nemmeeku. mais euh, foog nañu ni ci contexte bi ñu jógee pendant presque un a et demi sénégalais yi ñu tëj leen ci euh, Covid bi ak leneen ak leneen euh, quand même assister à autant de meetings de mobilisation humaine tout en oubliant quand même que on a on est passé par plus de autant de morts ci Covid bi yaakaar naa ni am na leneen lu gënoon a rafet pour un chef d'État de démarrer comme ça ses activités politiques man li mu mën a wax rek mooy on a vu plus un chef de désordre qu'un chef de l'État. Et quand même, on, on le rappelle à l'ordre en lui demandant quand même que du nii la ñu bëgg campagne électorale yi déroulé wu. parce que Sénégal dañu am fu ñu jóge am lu ñu vivre am difficulté yu ñu am bu moom mi nga xam ni moo jiite réew mi moo mën a lancer les choses avec autant de de folklore ñi nekk ci ginnaaw ce sera un laisser-aller monumental et quand même Sénégal amuñu droit boobu. amuñu droit boobu parce que dafa mun mënuñu wax nit ñi dem leen ngeen vacciné wu feebar bi mu ngi fi ba léegi mbas mi génnagul ci réew mi ne ñuy assister à des meetings comme ça et puis ñu bëgg ko tàmbalee par moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi. et puis sans respect des gestes barrières. Ah wala mënoo am geste barrière euh, parce que boo gisee xale moom kese du moom kese euh, réew mi yëpp fi ñu toll nii ñoo mel ni dañoo fàtte corona. moo tax nag ñu koy woo moom mi nga xam ne moo waxoon nit ñi on ne en guerre. parce que affaire mbir mi c' est affaire c' dafa mel na loo xam ni quand même il faut revenir à à à à dañuy delloo si suñu xel euh, du moom kese mais moom moo jiite réew mi c' est le meilleur exemple et c' est le premier exemple euh, c' est le chef suprême donc si lui-même commence comme ça dans le désordre absolu ñi ci topp lan la ñuy def moom ak ñëpp la ñuy araftu parce que jàpp naa ni même ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi du seen wareef fi jafe-jafe askan wi toll ñu ku nekk bëgg a wane sa doole populaire solal ay nit ay t-shirt solal ay nit ay mbubba jël ay pancarte waaye nag ay politicien la lu mu nekk nekk président politicien la itam est-ce que mënees na ko bañal déedéet kenn mënu ko hmm. ko bañal dañu koy wax ne moom moo ñu wax ne réew mi dafa ndóol dañoo wàcc ba un pour cent dañoo nekk ci ay jafe-jafe Euh, corona bi mu ngi fi ba tey demagul sénégalais il faut ngeen vacciné wu vaccin bi bu ñu ko jëlul du ñu génn ci mbir yi sénégalais yi di di di di di xalaat ndax vaccin bi baax na wala baaxul dinañ ko def ak duñ ko def ñu ñëw won leen ne leen jaratu ko. parce que mbooloo maa ngi nii di tase. moom mi ngi mi ngi mi ngi meeting ak i militant am ñu tere ñoom Guy Marius Sagna ñu amal seen manifester ca ca Nianing euh, xam naa da jàpp ni bokk na ci les war a ñaawlu maanaam jaaduwul. ay ñi àndul ak moom ñu ñu def seen manifester moom muy meeting ak a doxal. li am euh, Malikounda moom précédent bu dangereux la boo xam ni quand même dañ ciy alerter képp koo xam ne am nga sañ-sañ ci réew mi parce que quand Sénégal nekkul territoire yoo xamante ne ay chasse gardée la. kii bu dëkkul fii amul droit ñëw fii wala amul droit ñëw fii gis nañ la dernière fois violenté nañ ko bi mu fa demee ñu naan ay ñi jege euh, maire bi la mu ñu delluwaat ñu tere leen amal seen biir am na sax ñu naan euh, dégg naa ko léegi seen rajo bi dañoo nekk ay politiciens mais bu ñu nekkee ay politiciens am nañu droit de Malicounda lan lan moo waral ñu mën a tere benn Sénégalais doo dugg ci benn bërëb ndaxte bokkoo ci bërëb bi. c'est un précédent extrêmement dangereux il faut quand même que loolu mu arrêté moo arrêté Guy Marius ak ñi mu àndal ak keneen koo xam ne sax am nga yéene wala am intention dugg Malicounda def fa quoi que ce soit manifestation dañ la ko war a autoriser loolu moom vraiment loo xamante ne la dañu jàpp dafa war a dakk parce que quand Sénégal Sénégal la Sénégalais bu ne am nga sañ-sañu dem fu la neex du ay micro territoire yoo xamante ne ñi fa dëkk ñoom ñoo ko moom Mhm. coow li fan yi mooy avion bi président jënd avion bu ñu commandé war ci jot le 16 juillet ñu ne woon secret défense du ñu ko wax waaye ministre euh, des finances bërki démb ci assemblée nationale moo xam ne 57 millions la ñu ko jëndee euh, te dañ ne woon secret défense yow milliards la jar ci suñu xaalis yow noo gisee avion bi ak waxtu wii fii réew mi toll jënd avion 57 milliards xam nga wax nga wax nga léegi Babacar ni président dafa dem démb def benn tournée économique ñu gis ne ñu ngi doon wax ne ñu ngi wane ay matériel agricole gis nañ sax ay moulin ñu nga xam ne gëj nañ ko gis temps Mathusalem mais quand même baax na ci askan temps jamono Elisabeth Diouf gis nañ ay machine wolukaay gis ay machines yu ñuy ñoom dem dem nañ sax ba ne plus de quinze mille euh, huit cent vingt deux appareil yoo xam dañ ko nar a jox askan wi soo demee ba nga xam ne yow sa askan ñu ngi toll ci moulin toll ci machine bu ñuy woolee ba pare ñu ñuy raam di la di la di la di la di la di la di la sargal gis nañu ay jigéen boo xamante ne mu ngi raam jëm ci président Macky Sall ay ñoñam di ko baatare ay billets gis ni ay góor ñoo xamante ne dañoo bëgg ndax am na ñu machine yooyu nga xam ne seen yi seen doole. moo ko nar a doxal. kon boo tolloo foofu nga toll ci réew moo xamante ne ñooñu nga leen defar leen loolu mu nekk teraanga ci ñoom war nañu mën a xam ni kon avion boobu. est-ce que dafa dafa nekk en déphasage avec ce que le Sénégalais lambda vit euh, nekk fi nag di di dellu siwaat toujours sur les dépenses faramineuses du président Macky Sall je pense quelque part sax euh, gën a méttital xolu Sénégalais la parce que c'est pas la première euh, wax nañ ci wax ngeen semaine bi passée bu jënduloon avion ci sa gis-gis nu mu war a def bu bëggee tukki. mu jël Air Sénégal international bi nga xam ni def ko gënoon ñoñal taxawal ko te ba mu ci duggee ba foog naa nag président Macky Sall moom mooy suñu premier euh, euh, ambassadeur dans le monde entier donc di voyager di jël Air Sénégal international même par moment dafa laaj mu gën koo def loolu lu gënoon rafet la dina doon gën a dooleel suñu compagnie bi que jënd avion yu boppam mais ñun ñoo toll noonu Babacar ñun ñooy pays boo xamante ne dañuy wër di wax euh, ask àdduna bi dimbale leen ñu lebal leen ñu baal lañu suñu bor jàppale leen ñu mais par contre xeeb ba bañaluñu dara suñu bopp bañaluñu dara suñu bopp yaakaar voir le cortège du président nga dugg ci dëkk yoo xamante ne yow la nga yor ci ci ay oto moo ëpp matériel bi nga leen may mais ñu war la tàcc quoi ñu war la féliciter parce que da nga nekk di liggéey alors que quand même tu es payé pour ça. alors que quand même problème de sécurité la euh, parce que avion bi di panne chaque fois wóorul en tant que président de la république problème de sécurité moo tax ñu jënd ko jënd ñu ko pour Macky Sall mais pour état du Sénégal. en tant que président de la république du Sénégal dañ ko ciy fàtte boole. président Macky Sall du président de la République simple président la République du Sénégal un pays du tiers monde bu nga xam ni dañu manqué de tout amuñu euh, ay hôpital yu doy njàng mi dafa sooxe euh, jigéen ñi ñu ngi dee ndax dañuy accoucher amuñu moyens yu bari Euh, nit ñaa ngi dee ndax dañu am problème mu cancer ñu faju jalis baa ngi rey nit ñi xif bi di rey nit ñi donc président réew moomu tu ne peux pas te permettre de te de te euh, nga teg sa bopp comme un président de prestige boo xam ni da nga war a am un avion parce que sa avion dafa panne président Macky fi mu ko defee jamono jii mu ko defee jamono jooju mooy jamono joo xamante ne ñun jàpp nañu topp ci ginnaawam di juge sax dañuy delloo suñu bopp euh, ci ci benn niveau boo xamante ne du ko jar nee naa léegi. Euh, moom jël na euh, euh, avion dem na joxe ay machine wolukaay ma nga ca àll ba pënd ma di ko di ko muy nooyi pënd mi otoom yi li muy yàññi yàññi ma nga ma nga xonq cooy ak ak poussière kon c'est logique ñu xam ni loolu du du priorité la priorité mooy mu defar tali malgré que nag tey ñu ngi ne ma nga jëm Kédougou waa Kédougou dañu ne dañu bëgg parce que li fi jaar ci ci ay président yëpp kenn mësu leen defal ay tali Euh, mais ñuy fàttali quand même ni Kédougou mooy mooy euh, région bi gën a riche ci Sénégal parce que foofu la suñu or nekk suñu cuivre suñu phosphate sunu suñu marbre ak leneen ak leneen. waaye Kédougou ndóol la de. Ah, ndóol ndóol la Kédougou nag ndóolul de. Kédougou yéeme na yéeme na melokaan Kédougou ndóolul. Hmm. da nga naan Kédougou dafa musu dafa nekkuloon woon bassin électoral parce que la fa nekk ci mbooloo barewul donc dafa nekkoon euh, parce que tamit ñu ngi exploité la fa ne de la fa ne ñu ngi koy génnee c'est normal ñu defal leen ay tali. ñu ngi tamit araftu état bi ne leen parce que état tàmm na fu mu dem rek dafa am ay intérêt population bi du ñu gis loolu ñoom li ñuy gis tout de mooy indi nañ leen courant indi nañ leen ndox gis nañu démb ñoo xam ni dañu doon jooy ci ci yenn tele yi ndax nee nañu ñoom bi ñu dundoo ba léegi mosuñu gis courant ñu leen di xamal ne leen mos leen gis courant ma yi ngi dëkk dëkk boo xamante ne ña ngi fay jëlee cuivre di fa jëlee phosphate di fa jëlee or di fa jëlee lépp di ko génnee di ko yóbbu feneen kon nag noonu ñu jëlee Kédougou yóbbu fa de see def fa ay chantier nanu quand même respecter euh, li nga xam ni moom mooy euh, askan ba fa nekk parce que souvent état buy dem di implanter wu fenn ci lay jël ay terre suufu jàmbur ci lañ koy jël parce que bu ñu dañuy defar tali defar leneen ci lañuy nangu suuf yi ci la ñuy jël euh, tamit caxat caxatee li nga xamante ne moom mooy ressources ya fa nekk kon c'est tout à fait normal président tey ak exploitation ressources yi nekk Kédougou ñu defar yoon yi yoon yi dañ ko war a defar pour askan wi ñun jàpp nañ ni état du defar pour askan wi état lu mu def rek c'est parce que am na intérêt bu nekk ci ginnaaw boo xamante ne bëgg na ko bëgg na ko jëli donc li ñu xam rek mooy tournée économique bii mu def euh, ñun rafetlu nañu le fait président di liggéey pour askan bi parce que loolu lañu ko fayee mais ñaan nañu itam mu ànd avec moins de folklore mu ànd avec moins de matu vu avec moins de d'argent dépensé avec moins aussi de de parce que loolu yëpp c'est une réponse à ce qui s'est passé au mois de mars. est-ce que li mu def nii parce que président dafa am problème Babacar. Euh, fi rek bañ dem wala. waaw loolu eggaguñ ci ndax gis nga Babacar lu nekk rek ak moment wam euh, président na def lu ko neex ci fii fii ba mandaam di jeex euh, bu mandaam jeexee ñu taxaw def son bilan ak préparer son départ. Euh, li ma jàpp mooy. Euh, tey ah, bu bëggut dem mën ngeen koo puusa. waa je pense que euh, du moom moo fi njëkk bañ a dem hmm, ki mu remplacer bëggutoon dem mais heure bi mu waree dem te askan wi décidé ko dem na. te kon moom ay élections voilà bu boobaa dina dem. élection yooyu j'espère que dinañ ci ñëw parce que mooy li nga xam ne moom ma gën a soxal ci comportement classe politique bi parce que boo waxee élection dafa am loo wax li ma bëgg wax mooy tey président Macky li nga xam ne yëpp mu ngi koy def ci inauguration di ko def ci euh, ci ci ci liggéey ak wone ko euh, lu ko war la lu ko waroon la bien avant ñu si fii tey parce que 2012 ba léegi mu ngi fi comme tey nag la namm ni tey la ko war a def war ko fësal ñu ngi ko ci encouragé mais ñu ngi wax seulement que dafa am loo xam ni euh, waru ko moom en tant que njiitu réew warul ñi mu àndal parce que lépp lu ñu wane ci mobilisation populaire du tax mu fay li amoon au mois de mars parce que président dafa am benn arriéré Euh, contentieux bu mu bëgg a woon euh, opposition bi wala wala adduna bi parce que il a été contesté dans les rues te loolu ça lui reste je pense un peu à travers de la gorge. parce que li am na ñu génn taxaw ci tali bi di ko xaar. waaw brassard rouge yu naa ni gis na rouge parce que newoon na du ko gis mais gis nañ ni ba mu demee euh, boori Koumpentoum taxaw na ci otoom dajale brassard yu yu bare bare ba sax moom ci boppam mu rafet lu ne ñooñu bu ñu manifesté wul woon du xam seen jafe-jafe. moom newoon na du du gis rouge te waxoon na du ko euh, léegi euh, élection yi locales yi rawatina. Mhm. yi ñu dëgmal janvier. Euh, incha allah lan mooy sa njàngat kon ci taxawaayu euh, ñi yëngu ci wàllu politique nga ni. waaw Babacar ñi yëngu ci wàllu politique dama leen di euh, yépp kenn ku nekk ci ñoom parce que dañu dégg coow lu bare ci candidature yi léegi ku nekk yaa ngi jóg naan man candidat laa man candidat laa te foog naa booy dem élection da nga war a bokk ci processus bu transparent processus boo xamante ne dafa jaar yoon ba ñëpp mën a voter askanu Sénégal yëpp mën a bindu dafa am kon loolu moo jiitu euh, candidature tey ñu ngi ci benn processus d'évaluation boo xam ni jeexagul normalement mu ngi war a jeex peut-être fii léegi fin juin début juillet ñu war ko tënk parce que dialogue politique bi ñaari at ay nit ñu ngi ciy dem di waxtaan di liggéey ay sénégalais patriotes moo xam ci côté du pouvoir moo xam du côté de l'opposition moo xam ne moo gën a metti parce que pouvoir sax am nañu peut-être ay ay moyens mais opposition bi am na ay groupe yoo xam ni ñu ngi dem di xëy di liggéey pour que sénégalais yi mën a voter loolu jeexagul ñu ngi ci loolu euh, ñu ngi war a jëm ci révision exceptionnelle des listes ñu wax ne euh, y a plus de 50 pour cent des jeunes yi nga xam ni nekkuñu ci ci ci fichier électoral bi képp kuy acteur politique sa liggéey war a doon ci mobiliser jeunes yooyu fexe ba ñu inscrire fexe ba ñu bokk ñu war a jàpp ñun xayma ñun en tant que opposition ak sunu experts yi ñu àndal ni révision bi mu ngi war a nekk vers le 10 peut-être diggante 10 août ba le trois octobre ñëpp xam nañ ni période boobu période hivernale la ñi nga xam ni dañuy euh, xale yi dañuy nekk ci dëkk bi di liggéey dañuy dem bay xale yi jàng dañuy dem vacance donc démobilisation jeunesse bi foofu euh, c'est dafay nekk lu acté acteurs politiques war a liggéey pour mobiliser jeunes pour xamal leen ni képp ku ci war a déplacé wu d'un point A à un point B war nga prévoir ni élection day ñëw après il faut nga inscrire da nga ko war a jëlaale matuwaay Babacar loolu est-ce que gënul am solo en tant que ki bëgg a ñu voteel la nga lijjanti ñi lay voteel nan la ñuy inscrire que yow ngay fëgg sa dënn naan man damaa nekk candidat tey yàlla may nañu ci biir dialogue bi. Mm, parce que man Barthélemy Dias ngay sànni xeer. fi mu toll nii kese moom ak ay moroomam. ak ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk feneen parce que aussi dañuy waxante dëgg dañuy waxante dëgg parce que c'est facile quand même que chaque jour on est là à dire ñii defuñu lii ñii deful ñi li man de bokkuma ci dialogue politique bi ñëw naa fii ci seen rajo wax ko d'accorduma ci ànduma ci woon mais am na ñoo xam ni ñu ngi ci dialogue politique bi di liggéey di di dund ay jafe-jafe pour que sénégalais yi ñooñu nekkuñ sax candidat te loolu jeexagul parce que mbir boo ko tàmbalee ak lu mu métti métti rek foog nga xaar mu jeex nga tënk ko xam li nga ci am parce que li nga ciy am du pour askan wi la. kon bu ñu waree processus électoral bi na parce que euh, fichier bi déjà au début bi di génnee rapport bi experts yi ñu jëloon euh, position bi taxaw yoon lii jaarul yoon nag euh, ba nga xamante ne féewuloo sax moo am ba nga xam da nga naan ndax liggéey bi jaroon na ko te ñoom ngi woon ci biir am ay représentant waaw audit bi dafa différent de processus bi parce que. audit bi loolu aussi dañ ko war a leeral parce que ñi ñi ñu foog ni rek lépp jeex na opposition bi dafa sànni lépp non dafa am audit ñu dañ demandé woon un audit ci biir audit bi euh, ni ñu jàpp ni munoo yow en tant que ay experts yu ñëw jóge étranger ñëw nekk kat ñu ñoo leen recevoir nga audité benn mbir nga génnee si 32 points yoo xamante da nga ni ay recommandation la baaxul. Hmm, recommandation ah, lu ñu war a xool mën a yokk lu ñu war a waa kon yow soo nee 32 32 mbir yoo xam ne yow càmbar mu ngi ci nga dellu nga ne le dafa xaw a contradictoire te euh, tey am nañu yeneen audit évaluateur yoo xam ne ñu ngi fi ñu ngi liggéey te ñooñu ci seen biir liggéey dinañu am ay point ci ci audit bi yoo xam dinañ ko dinañ ko jëlaat en charge donc liggéey baa ngi continue liggéey bi mu ngi continuer euh, opposition nag c'est normal bu ñu waxee ni danañu évaluer nañu nañu auditer ñu gis ni audit bi sooxee na ñu wax ko askan bi pour que askan bi jël matuwaayam mu des nag léegi ñu ngi évaluer donc bu ñu ci évaluation bi dañuy ñëw après xool li nga xam ne moom moo ci baaxul mais daal li am solo ba am solo mooy euh, na euh, acteur politique yi accompagner population bi ñu mun a inscrire mën a mobiliser wu pour mën a am sañ-sañu voté moo gën a am solo ku nekk di xëccoo naan damaa nekk kandidaa parce que bala nga naan naam ne fa. jërëjëf bu Bousso présidente mouvement force citoyenne jërëjëf euh, Laaji Ndiogu yaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendoog jàmm ziar Fatou Kiné ak ñamu àndal ca TFM yendu ak jàmm yéen ñëpp. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal.